بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء أنت محمد المصطفى بايكو مبور bokk ci faru xifdul quraan ma tajwiid wa tafsir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين sadaqallahul aziim bismillahi rahmaani rahim maa ngi tudd Mouhamadul Bachir Samb dëkk Ndar nekk ci maahadu faarisil islaam bu Cheikh Mouhamadul Bachir Samb rahimahullah bokk ci far'ul hifz ma'a tajwiid wa tafsiir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون وبالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi tudd Mouhamed Moustapha Ndaw dëkk Kaolack di jàngee si markaz daarul arqam ibni abil arqam di candidat si jaayisatu cheikhul xadim faru wala qismu at tajwid wa tafsir بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لُدًّا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته seen mbokk Cheikh Ibrahima Seck bàyyi ko Thiès bokk ci faran al hifz ma tafsir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 إن شانئك هو الأبتر sadaq allahul azim asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Nafisatu Buso bokk ci jaayisa bi faru xifdil quraanil karim ma tajwid wa tafsir acuudu billahi min ashaytaani rajim وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الخير واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات